di jëm ci wàllu examen yi maanaam am bic yoo xam ne dañ ci ñaan ku bëgg ak wàllu examen dina la ko jox ak ni nga war a jàppe kooku itam yàlla léeg-léeg daal dina ma ci defal. waaw ah, sëriñ li nga xam naa ne xale yi def examen bu ñu la déggee moom dinañ daw gaaw ñu seet si la defal daal eh, dam daal. Ah, ah. ma di ko ci sant di man nag yàlla. wàllu examen yi wàllu examen bi. Mm-hmm. dama ñaan ci ay. asalaamualeykum wa rahmatullah waa euh, lu xew TV maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax de leen jox seen wàccuwaay di nuyu tous les internautes là qui nous suivent waaw may wax ci affaire kii bii ñu dugal tey di wax ci affaire kii yoroon doomu jiitleem euh, boole ko papaam mu dóor ko ba mu dee muy lu metti loo xam ne jaboot gu ko dégg rek am nga lu la metti xam nga problème mu doomu jiitle c'est un problème tellement délicat que euh, ku ko ku ci jaarul rek mënoo ko xam dafa doy waar xale bu ñu la ko joxee nga yor ko c'est parce que boo destee soo lié yàlla moo ne woon xale boobu dina jaar sa loxo pour nga yar ko parce que rien n'est hasard bu ko yàlla tuddee nag yow waslu ci sa àq donte yar metti na parce que koo yar bañ la wax nañ ko ndax boo yaree bëgg mu baax il faut xale ba dina la bañ dina ne bu ma nekkoon ak sama yaay wala bu ma nekkoon sama papa du ma nii donte nag yaay ak sax mën nañoo gën a dur mais doom moo mel noonu doom boo jurul moo mel noonu mais yow mii mag seetal sa diggante sa yàlla seet sa diggante ak sa yu bàmmeel loo ciy def def ko te yàlla rek tax ba nga xam ne bu ëllëgee tu n'auras aucun regret ndaxte koo yar ba mu màgg bu baaxee xam na bu bonee xam na parce que yar bu sedd aussi ñu jox la doom tamit nga ne juruma ko rek duma ko yar loolu tamit baaxul bàyyi ko lu ko neex def lu ko neex wax doo euh, doo ko jàngale bon bonnes loolu baaxul mais xale boo koy yar teg ko rek sur les rails mu wóor la ne bu doon doom joojur noonu nga koy def bu ëllëgee même à un moment donné bu la bañee sax parce que même doom ji nga jur dina am moment boo xam ne boo koy yar yar bu dur bëgg ko teg sur les rails dalay bañ yar moo mel noonu xale moo mel noonu parce que day bëgg liberté mais ku màgg di nga gërëm mbaa nga xarab parce que bés boo demee ba màgg nga am de bonne manière xam nooy waxee nit ñi xam nooy comporté woo foo dem mën faane mën liggéey am de bonne manière <tsk> ah à un moment donné bu fekkee ne mere nga ki la yaroo nit di nga ko gërëm de di nga ko gërëm parce que olof nee na boo jëndee mbubb juróom-benni junni jox tailleur muy dagg di teg day niru yàq mais su paree ba nga sol di nga xam ne ah kii lu baax la ci bëggoon yar noonu la mel nit ñi jigéen ñi nañuy am yërmande. waaw ma ne jigéen ñi aussi nañuy am yërmande parce que doom joo jurul nekkul ak yaay nekkul ak papa nga di ko jaxaseeg papaam mu di ko dóor ci loo xam ne du jaadu bu defee loo xam ne nag dépassé na la mën nga ko kalaame papaam pour mu mu mu mu corriger ko parce que papa en général mooy ëpp autorité mais am na yenn yoo xam ne dafa ëpp parce que niñ ko waxee xale bi 10 ans la am ñu bëgg ne dafa doon sàkku xale bu ndaw bi ba tax papaam doon ko ba rey ko ëpp na góor ñi tamit am nañ ci une trop grosse de responsabilité parce que la confiance n'exclut pas le contrôle soo nekkee sa jabar mu yor sa doom deel xool lan lay séq ak moom parce que am na ñoo xam ne dañu hypocrite bu papa ja toogee ñu lay raay di la neexal di la tam-tamal bu demee ñu lay dóor di la teg ci raay gis nga traitement bi nga koy def bu papa toogee bu papa ja toogul bu gan toogee na nekk lenn yow bul rek ni nga waaw mais bu papa toogee nga raay bu demee nga teg ko lu metti du lekk bu suur du naan ba màndi loolu ëpp na parce que nag kat am na fi ay ñu yar doomu jiitle te loolu amu ca de parce que kër goo dugg te xamoo ña ndaw sa juróom ña mu jurul kon yar ba baax na mais bu fekkee ne yar bu bon la boo nee salaamaaleykum ca kër ga di nga remarqué nettement ña fa seen yaay ne ak ña fa seen yaay nekkul am na nag am na de am na ñu baax ci doomu jiitle dinañ la ndaxte nee nañu toujours dama koy wax nee naa leen xale bu jigéen buñ ko yaree ci kër ni ngay xamee ne yaayam nekk fa bopp bu ràbb dàll yu dagg yëre yu tilim mais ba loolu amul kon jàmbaar nga bu liggéey dina ko def nag parce que jigéen ku ko yor liggéey loo ko toj xolam parce que ce qui l'attend c'est plus dur que yar ba muy sëy doom ju góor it tamit teg ko sur les rails yar ko mais ci kaw rek euh, manque d'hypocrisie mais bu papaam toogee nga raay bu jógee ngay dóor loolu jaaduwul te nee nañu doomu jàmbur ak toolu jàmbur la yem ci bay rek moom ngay góob nañ xalaat ne bu soobee yàlla ëllëg dinañ la yoon di suñu ndi joote on aura des comptes looy def ci doomu jàmbur def ko te yàlla rek tax def ko te bëgg mu baax ëllëg ndaxte boo amee responsabilité yor doomu jàmbur yaral yow jugement ba muy am ci yow bu ko lijjanti bu ko toppatoo bu ëllëgee ba mu màgg ba wéet ak boppam dina xam ndax yar nga ko wala yaroo ko góor ñi tamit nañuy xool bu ñu ne rek sama jabar baax na mais léeg-léeg del sàcc di xool ndax sa doom a ngi lekk bu suur sa doom a ngi naan ba màndi surtout góor ñi nga xam ne dañ leen di beral lekk duñu xam sax seen doom duñu lekk lu baax ndën la na ko ñëpp bokk lu ma munti doon na ko ñëpp bokk ber sa jëkkër jël say doomi jëkkër di leen jox lu kenn xamul ñuy lekk yooyu yëpp dafa am ci kër yi te góor ñi ñaare en général duñ koy seetlu loolu yëpp nañ ciy bàyyi xel bu sa jabar ñëwee ne la ah kii def na nangam bu jaree corriger corriger ko nag parce que tamit am na foo xam ne yaayu jiit la jë mënu fa yegg su ko defee yow corriger sa doom mais bul gaañ bul damm bul rey mënul ñàkk mënul ñàkk mais en tout cas pour ce problème là doy na waar parce que xale bu am 10 ans ñu dóor ko ba mu dee ne dafa doon sàkku rakk ja xam nga ne loolu logiqueul yenuwul maanaate du dëgg du yoon jigéen ñi nañu seet seen digganteeg yàlla xam ne doom joo jurul doom la doom ji nga jur doom la ndaxte ka lay jëriñ ëllëg kenn xamu ko doomu jiit la defal na doom euh, ndeyu jiit la loo xam ne doom ja mu jur defu ko loolu yàlla ka baax di nga yëndi doom mu dem ba ëllëg mu xam ne vraiment yar nga ko yar bu baax mu kontaan ci yow defal la loo xam ne yóbbu la màkk tabaxal la kër loolu yëpp am na fi même bu ñu la fayul ñoom yàlla dina la fay parce que olof day wax ne fa nga leblee kenn du la fa fayee mais yow defal te yàlla tax bu ëllëgee di nga gis retombées yi dina am lu la dal loo xam ne di nga ne ah la ma baaxoon ca doomu jàmbur jur lii te encore une fois bu kenn mere kenn ku màgg doomu jiit la yi tamit nañu def seen xol xam ne ña leen yor am na ca ñoo xam ne bañuñu leen dañu bëgg ñu baax te ku bëgg nit baax lu baax yombul ku yar bëgg mu baax il faut mu metti ndaxte kala yar amaana moom ci boppam yaayam ak papaam a ko yar mais tegoon nañ ko lu metti loo xam ne moom tegu ko loolu yi dañ koy seet waaye màgg rek di fàttali ko sama tantaama waxoon sama tantaama defoon sama tantaama ne lii loolu tamit rafetul ay ñaawoo rek lay indi te du àdduna ndaxte ki la yar daal encore une fois ba nga xam moo xàmmee jànjak jóor xam fooy tooge fooy comporté woo xam mun a def nit ñu baax ñi ah boo ko waxee boo ko waxul yar nañ la mais daal jigéen ñi ngeen bàyyi lu bon doomu jàmbur ku ko yor def ko ni doom ji nga jur nit war naa mën a dugg ci kër ba dem du xam ki nga jur ak ki nga jurul loolu bu amee rek mbaax am na mais boo nee salaamaaleykum ka ka jurul moom la ñuy yóbbu. daal nañ yarte yàlla rek tax may jël sa doom tëral muy nelaw tëdd fu baax nga jël doomu jàmbur timis tàkkusaan tisbaar moom ngay yónni loolu jaaduwul nañ ci bàyyi xel. nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax te xam ne nañ def te yàlla rek tax te xam ne yàlla kese kese kese moo mën a fay ki nga yar sax mënulaa fay ndaxte jaar nga moom foo xam ne bu dugalal ko de bon euh, euh, une très bonne éducation mënu ko fay kon nag nañu yar nañu def te yàlla rek tax waaw yàlla mooy fay